dëggam teg na leen pression nee na leen équipe buy attaqué laa soxla bu kenn yox-yoxe ñu baral jéego yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak enquête ak réew mi quotidien nee na Macky Sall am na juróom benn ci ay priorité yoo xam ne wax na ko niki démb gouvernement bu yes bi journal bi di Sud Quotidien nee na Idrissa Seck ak Omar Sarr ak ñi nga xam ne ñoo dugg ci gouvernement bi ànd ak Macky Sall merloo na lool ñi nga xam na ñooy opposition bi docteur Babacar Diop ak Cheikh Bamba Dièye ñoom bàyyi nañu Idrissa Seck yéen a gi nee na front de résistance nationale ñoom nag nee nañu dañuy dàq dàq Idrissa Seck ak Omar Sarr ak mboolem ñi nga xam ne maanaam dem nañu fekk Macky Sall journal bi nee na waxi mag dafay guddee rek waaye du fanaan àll lii lépp Abdoulaye wadd waxoon na leen ko ndax front bi ba fa Abdoulaye Wade di génn waxoon na leen na leen am na ñu nekk ci front bi ñoo ngi waxtaan ak Macky Sall te loole bu sottee du jëm kër waaye nag gëmuñu woon Abdoulaye Wade dëgg ya mu doon wax lépp leer na yéen kaay gi de la Tribune nee na mbir mi lu ci mën am mooy Macky Sall ak Idrissa Seck ñoo yor seen cëggul guy di doxal fii ba 2024 réew mi quotidien nee na Macky Sall la démb am na nag ñu bees ñoo xam ne daat na leen di nommé ku ci mel ni duudu Ka moo jiite AIBD Thérèse Faye jiite FONGIP maître Moussa Bokar Thiam agence judiciaire de l'État moo fa wuutu Antoine Félix Diome mi nekk ministre de l'intérieur Maguette Sène maire bu ku Malicounda moo jiite kuddu moo fa wuutu Abdoulaye Sow yéen a kaay gi lii li quotidien daat nay wax ne remaniement bii nga xam ne Macky Sall def na ko am na ay lees waxu la ndax Maodo Malick Mbaye waroon nañ ko dugal ci gouvernement bi Mbaye Dione maire bu Ngoundiane waroon nañu ko dugal ci gouvernement bi waxtaane dëkk Diourbel waroon nañu koo dugal ci gouvernement bi maanaam ba ñu demee ba sa ci pandaw ga la ñu andi ay coppite jëm mbir mi yéen a kaay gii di lay seko nee na Amadou Hott andi na ay jafe andi na malaise fi nga xam ne mooy Guinée Bissau ndax Amadou Hott ministre bi dafa wax ne Sénégal signé na ay accord lu jëm ci wàllum pétrole ak bi Bissau te loole amul ndax njiitu réewum bi Bissau di Omar Sissoko Embaló daan na koy weddi nee na Amadou Hott li mu wax du dëgg ay waxtaan moo am waaye nag ak déggoo amagu ca Barthélémy Dias Ousmane Sagna démb janoo nañu ak taskatu xabaar yi lu ñu yëkkul waa sénéra dañu ko fàtte ndax daan nañuy wax ne ñi nga xam ne ñoom lañ génnee terme sud dañu leen a waroon a amalal ab téléthon loole nag waa sénéra ñoo ko daal di gàntal ci loo xamante ni ñu ko fenn waaye nag ñoom am nañu beneen pexe ab site internet la ñu ubbi ngir nag fa séene fa dajale xaalis boo xam ne danañu si jàppale ñi nga xam ne ñoom lañ génnee terme sud l'observateur nee na terme sud gookee état bu sénégal waxoon na ne quatre-vingts millions la génn ngir jàppale leen ko si waaye nag am na lu toll ci fukk ak ñett ci ay njaboot yoo xam ne dañu leen saa seppi yéen a kaay gi dikk na ci émigration clandestine bi am na ñetti étudiants yoo xam ne faatu nañu ci la turbine nee na nag tumuranke gi nga xam ne moom la askanu Sénégal tumuranke maanaam ma ngi gën di law ci réew mi pauvreté bi ak ñàkku xëy gi ak nag ñàkku yaakaar gi nga xam ne ndaw ñi amee nañu ko ndax jamono ji mën nañoo wax ne ci Sénégal foo laal day metti réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Macoumba Diouf fa directeur national horticulture mbayum dër nee na covid 19 bi andil na leen ay jafe-jafe yu ci wàllum soble seeg pomme bi ak carotte beek supame ji wax na ne état bu Sénégal war na taxaw ci lu jëm ci wàllum infrastructure soxal wàllum conservation ndax bëri na ci loo xam ne dañu koy bàyyi ba pare mu nëpp lu jëm ci wàllum dimbale askan weeg coronavirus soble ak pomme de terre lu toll ci juróom benn fukk ak juróomi junni ci ay njaboot yoo xam ne jàppale nañu leen yéen a kaay gi xëy yóbbu ñu ca réewum Côte d'Ivoire nee na Guillaume Soro ma ngi woo armée bi ngir ñu jokk fare ci askan wi yéen gi ñu fekk fa Samuel Eto'o daan nay wax ne Sadio Mané bokk na si dàq football jamono ji ci àdduna bi kaay di Stades xëy na ci Ligue des champions ak Paris Saint-Germain gi nga xam ne nërmeelu na niki démb moom ak Manchester United Edouard Mendy góolub Chelsea bi di doomu réewum Sénégal démb moo def mat bu rëy yéen kaay gi di sunu làmb nee na nag mbir mi jeex na wure wa dem na këng waxi mag dem na nañ taali Aliou Sarr jóge na ci bopp CNG xam nañ kan moo koy wuutu ki kay wuutu Bira Sène la tudd moom Aliou Sarr ñu koy fekk ko ci yéen kaay gi muy régler ay comptam nee bëri na ñoo xam ne dañu ko doon complot di yàq daram waaye nag li ñu koy tuumaal lépp mooy li mu yàgg ci bopp CNG